sàmmantewu loolee itam bàkkaar ba suñ borom la mu diggee woon euh, dara mënu ko dindi kon sëriñ bi nee na ngi koy fàttali ñëpp di ñaan itam nag ñëpp gën a bàyyi xel ci loolu lépp lu mën a indi fitna rek ñu wattandi ko te xam bakkan doomu aadama diisaay bi ak li ci nekk nee na kon loolu mi ngi wax ñëpp lu waay man ci dellu su borom jéggulu ngir bàkkaar yi mën a wàññiku dellu sa borom ngir yërmaande yàlla mën a wàcce waaye itam lépp lu waaye mën a génne ci sarax ndax sarax kat balaa sarax bokk na ci lu koy tëgge kon li yunfiq su saati min saatihi wa man qudira alayhi risquhu fal yunfiq ma aataahu llah kon loolu sëriñ bi neen loolu lay fàttali ñëpp ñu bàyyi ko xel di di di leen ci ñaax di leen ci soññu ñi nga xam ne itam loo ñooñu ci seen loxo la nekk ñoom itam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 ba ca desaati mooy ak cant gu mu ci mboolem euh, njabootu Serigne Touba gi ndax nee xam na ni bi fi Cheikh Sidi Moukhtar bàyyi ko ba ndege ni bàyyi woon na fi ay sànci yu rëy muy jumaay Touba ji ak liggéeyam ba li ca Ndakaaru ci bopp mi tam ngir xam ne lépp loo xam ne taalibe yi am nañ ci doogoon Serigne Touba da leen ci fekk si mu somboor sombu rëy muy université bi.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 doomu aadama tuuti na ci jéem ko def kon ñi koy def itam nañ xam ne naqari nit ñi lool te naqar bi kat bu dee bu continuer ñi ko war a saafara dañ ko saafara te buñ demee ba ba di ko saafara it dana àgg foo xam kenn kon loolu itam nit ñi war nañ koy bàyyi xel bu baax te xam ne bu fekkee lu baax lañ bëgg wala ñu bëgg yee nit ñi it war naa am feneen fi ñu ko mën a jëme wala feneen fi ñu ko war a waxee waaye loo xam ne boo ko waxee jubloo ci dara du jëm a yàq position fu nit wala ngay saboté ay nit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 sayyidina wa mawlana muhammadin makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin wa radiyallahu an baqiyati salaf wa xudwati alxalaf faxri diini walwatan mawlana alabd alxadim ahmad bni muhammad bni habibillah bokk jullit yi bokki taalib yi bokki réew mi ñu ngi yëkkate sunu kàddu ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha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 wattandiku loola ko jiitam ci weer wii ndax dégg ngeen ci xadis ba la mu wax ndax weer koor dafa bokk ci farata yi yaa ayyuha lladiina aamanu kutiba aleykumu siyaam kama kutiba ala lladiina min qablikum laallakum tattaquun waaye eh, dégg ngeen ci xadis bi mu wax ne man man lam yada bi fa laysa lillahi xaajatun fi an yadaa taamahu wa sharaabahu nee na képp koo xam ne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 koonoo mahal xaqi mahma kallafakumul amr fa la koy teg mooy li mu war a digle ak sañ ko tere na ko kilifa bi daa defe rek mooy wax li mu war a wax nit ñi buñ ko déggee jëfe jëfi ko mu jariñ leen buñ ko déggu ñàkkuñ ko jëfe rek boobaa moom mu wàcc kon loolu mooy li nga xam ne mooy li li ko boole digge ma njabootu Sëriñ Tuubaa ji kon mu ngi fàttali ci réew mi xam ne fan yii xew-xew yu bari na lool rawatina bakkan yi ci rot loolu nag nee na la ci jëkk ci lim ci fàttali mooy delluwaat suñu borom ngir xam ne bakkanu doomu aadama dafa diis danaa ci leeral li tax mu wax loolu kon li nga xam ne mooy ngànnaayu jullit mooy ñaan nee na mu ngi koy sàkku ci àdduna sépp lu waaye man ci ñaan dellu ci sa boroom